Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké ba yaa gëñi di koon yow mi nu may kun fa yakoon gaawe nu ngir yaruma nde Serigne bi yar nu nu bu ñu Serigne Saliou yarunu yorunu bu ñu réew ay Mbàkke bun dox di wërim réew te nu ci loo wax ne waaw ngir bëgg a am sa yërmande Serigne Saliou Mbàkke te nga xam lu yoon ba mu weex ñu biti aw te bu ñu xeex te bu ñu yàgg bu ñu jeex ba gis te néegi yërmande te nga fegal nu déggu gaaw ak rek ki gëm ak déggu ñaaw seen sax ci loo wax nu ne waaw ngir bëgg am. man la jaka Diop vice président daayira Taysiroul sir soppay Serigne salim dal di leen yu bu baax baax di leen sante ci seen teway ci bis bi nak bëggoon nañu xam lan moy sabab bis bi ak lan moko waral. bis bi nak ay tout tank yu dajé won ci bir koñ bi la won rek fasiyena andando àndandoo Serigne salim Mbacke daan ko def nak lu jitu daayira bi biñ demee bam yag nak ñi daal di taxawal abiss bi nga xamanteni ni waral ñi sos daayira nak cënd gi ñi def mo jitu daayira bi di di daayira Taysiroul Soppe Serigne salim lool daal mo nekkon sunuk sant go xamanteni sak at ñi daan dajalo di def ba léegi mu yexsi ni man na ne wote nan ko lu jege juroomi at wala juroom benn sax amna ci rafet ñort gogu non daal waaw ñu koy bis bi daal wuté daan wàcc ay kamil jang ay xasida dari berne salat ala nabire rek kon undi amé won ndigalu jëm ba keur seigne Cheikh Saliou la ko ci bam jox ñu ci ndigal ñu fasiyene diko di def daal loolu lépp ba léegi dal noonu lañ ko doxale sagat non dal lañ doxale bismi daara daayira bi daara bi naka la doxee daara bi daara bi waaw passé wu rek and lepp rek social dimbalante lu way mën dimbalé sa nga def ko ci muy goor muy jigen ñun ñëpp dal lañ di def dal non dal daara bi doxal amul xet kenn amul naw kenn ñëpp daal ñoo tolloo yam daal mbir mi daayira moom noonu lay doxee daal la ñuy doxalee daayira bi. mën nañoo xam lu jëm ci social bi mooy ki nga xam ne mooy seen jëwriñ ji ñu jiite képp ku ci am lu la naqare wala benn tawat wala loo xamante ni daal gis nañ suñu mbokkum jullit ñu war ko saafara ci affaire yi alal wala doole lépp lu mën a daal danañ ko ca def noonu la ñuy rawatina nag ñu bokk ci biir daayira bi ñu wekk ci biir daayira moom lépp lu ci metti sawaay Ya, bu ko jeewru ñi yegge lu mu soman dana ko def bu fekke doole lañu def ci doole bu fekkee alal la ñu xol alal ñu am ñu def ko ci mën nañoo xam seen réalisation bo ba légui man dégguma. li nga xam jot nañ ko taxawal li nga xamante jot nañ koo taxaw social dal danaka dañu baaxu jëf di wax nak waye na dimbali nañ ay nit ño xamantene ñu bëree bëree bëri ci ay tawat la ci seen i waajur yu tawat wala ñom ñu tawat ñu yëkkati ci keesu daayira gi faj leen ci loolu benn di ñaar daal loolu man naa kaa cee wax daal waaye nag ñun baaxoo woon di liggéeyal kenn naan diw ak diw ak diw daal loolu moom mënuma ma cee leeral foofu laa ci mën na yem waaw. daara bi ci biir réew bi la yem yaatu ñi ngi ñaan mu gën a nag waaye ci biir réew bi la yem rek ci biir réew gi la yemagoon waaye nag ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mu dem ba usut daalee wilaaya yeeg yëpp di yem foofu daal loolu la ñuy ñaan suñu bëgg-bëgg ñun ñëpp waaw. waaw ñu gën a àndaal rek te xam ne àdduna leen am fi lu dul liggéeyal borom Tuubaa rawatina nga nekk ndaw nag bokk ci ab daayira tay si si soppay sëriñ Saliou kon loolu daanaka tawfeex la léegi nag li may ñaax ñi ci nekk ak képp kuy dégg suñu kàddu te bëgg a boo ñëwee ba fii Touba Marsement Binta soo ñëwee jëwrin yaa ngi fi muy Serigne Saliou mi ko jiite ak jëwrin Serigne Saliou Sow ku ci ñëw a bi loolu daal moo nekk sarti daayira a ñaaxaat ñi ci nekk daal xam ne dara yëmut ak liggéey suñu jox yëmut dara te bo ci nekké nak sétan day bëre yow waaye señ Tuubaa moom seytaan dana ko jub te du yex ci mom lool daal lay soññiwaat ñëpp ñu ne ci bi daayira bi. wa guddi gi ni wara doxé moy programme bi ñu ko bindé rek ginaaw bu ragaskat yi jàngee ba jàngal xasté yi jàll Serigne Karaskan dana fi jàng Serigne maralo ak Serigne Pape Diop ñoom ñëpp dañ fi yëkkat di fi jàng ak gaay yi durus lool daal mo fam lool lay doxal ci guddi wa wa fayar daari berne. façon berne yu ni benn yooyu mi fi daal waaw jërëjëf Fall sant nañ ko. ñu ko tàmbali 2015 lañ ko commencé lañ commencé di ko di cant muy cant Serigne Saliou ñu ci am mbégte lool nag ak contentement bu wér a wér ba tey nag yokkute rek lañ ci gis ak kontantement ak mbégte ndax Serigne Saliou. dañoo defal ñun ndaw ñi lu mu deful kenn lu mu defalul kenn kooka ni ndaw loo ci gis boo tijjee xolam sëriñ Saaliw bëgg sëriñ Saaliw nga ciy fekk wax dëgg mu nekk lu dégg si ñun ñu koy safoo di ko bégee chaque jour ba tax na à chaque fois luñ ci mënti demee rek xol lañ ci demee ak mbégte ak yéene ak bëgg kon sëriñ Saaliw daal ñun amuñu fayam ginnaaw yàlla lii lépp tey moom la kon dañ koy ñaanal Mbàkke fu mu tëdd suñu borom yokk ay leeram taf ñu ci barkeem di wax ni ñu ngi ñu ngi kontaan ci moom di bég ci moom saa su nekk di ko liggéeyal jëm Sëñ tuba commencé woon ci ko def daayira guddi muy dem di dom jamono di dox di dox di dox do booba sax membre yi bëri wuñu mais jamono yi dem muy dox Sëñ di ci jàpp muy dox sëñ Saliou di woo ay ndaw muy dox di dox di dox dox tey ba yegg si fii ndax boo xoolee daayira bi ay ndaw rek ñoo ci nekk amul menn mag moo xamante ne nii bu ñuy wax am na ci daayira mi ci nekk ñëpp ndaw ay ndaw lañ moo nga xam sëñ ay mbiram yëpp mbiri ndaw la rek waaw ñu koy sant nag bu baax a baax a baax waa koñ bi niñ gisee daayira bi mooy mbégte ak fierté ndax euh, ku nekk bëgg na ko te tey sa doom juddu wax dëgg aw ci yoonu njub ndax daayira benn daara la dina la defar dina la yee dina la xam fi ngay tegloo sa tànk ba pare comme jamono ni mu demee nii nga xamante ni yàqu-yàqu yi bëri na euh, daanaka xale yi daanaka génération yi ni ñuy jógee doy na waar loolu lépp tey amaana daayira da koy fànk te wax dëgg gis nañ ko ci ndaw ñi di ñaan suñu borom mu yokk ndax euh, ndaw lu ndaw lu jóg rek aw ci yoonu baax rek amaana ay waajuram dinañ ci am euh, seen xel dina dal waaye ndaw lu jóg tamit aw yeneen beneen yoon it amaana seen waajur tamit seen xel tamit du dal waaye sant yàlla tamit bi ñu suñu borom xittalee ñuy liggéeyal sëñ Saaliw di xittal ñu ci jaamu yàlla di ñaan suñu borom yi nga xamante ne nii duggaguñu ñu leen ñaan ci bàkki sëñ Saaliw suñu borom xëcc leen ba ñu mën a ñëw ñoom tamit eh, ñëw ci daayira bi si baag si Saaliw waaw ñi nga xamante ni nii ñoo fi nekk man dama leen di ñaan ñu gën a yokkaat eh, comme lu baax moom du doy chaque jour rek lu baax loo def rek danga ko war a war a romb loolu xool viser waat sa eh, bopp ca kanam ci lu baax man loolu laa leen di sooñu sama mbokk yi soxna yi ak baay faal yi ñëpp képp ku nekk ci daayira bi rek loolu laa lay sooñu man mag di leen sooñu ko fi nga teg sa tànk muy lu baax suñu borom may la nga gën ko yokk gën ko yokk gën ko yokk dara buum ci wàññeeku ñi nga xamante ni nii nag nekk nekkaguñ ci amee ñaan ci bàkki Sëñ Saaliw ndax ku ci nekk rek Sëñ Saaliw moo la xëj damay ñaan ci bàkki sëñ Saaliw képp koo xam ne nekk góor si rek yàlla na la sëñ Saaliw xocc ba nga ñëw ànd ak ñu liggéey ci bàkki sëñ Tuubaa maa ngi kontaan bu baax a baax nag ci bés bi kontaan bu baax a baax a baax di sant euh, jëwrin Baye Zal sëñ Saaliw maaleykum salaam wa rahmatulah Abdoulaye Diakho bis bi ginnaaw bi ñu sant yàlla bi di jënt bi di sant suñu ñaari waajur lii moom doon loo xamante ne wax dëgg yàlla lu am mbégte la ñu tuddi ko waa daayiratu Matlabul Fawzeyni man maay président daayira bi euh, sama gaay yi nag ñu bokk liggéey bi nga xamante ne dañ di liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu jël lu mel ne bis bu toll nii tudde ñu ko ñu ngi sant yàlla bu baax. Serigne yóbbu nu jannatul mula mooy kër ga amul tiis ak balaa te boole no kulal mala kulal mala mu wan gën gi yërmande Serigne Saliou Mbacké yàlla na nu sax ci yow ba dee Serigne Saliou Mbacké